aar bi sifflé na 21 heures 55 minutes tey làmb dem na ba 10 heures moins 5 lii war nañ ko saytuwaat waa CNG xoolaat leen ko dégg mais làmb ju mag ji moo demee noonu dafa am ay combat yoo xam ne dafa duré bëre nañ ko ñaari round caatu yaraax moo ñu wat ginnaaw amoon na jël wala dañoo njaax arbitre nee na njaax nañ bëriwaat ndax mu leer Bulldozer li nga amoon est-ce que di ko amaat caatu yaraax Caatu Yaraax day joué nag loolu day joué ci psychologiquement ci xel waaw ni mu demee nii sànq ni yaakaar ko woon de. Bulldozer cokkaas na ko da kay cokkaas da kay cokkaas topp na ko Caatu Yaraax day maam Caatu Yaraax day maam dóor dóor ba kuy wàcc jàppante nañ ñaar Bulldozer na ko ëñ na ko mboot sànni jàppante nañu eh Caatu Yaraax rëpp na Caatu Yaraax fait attention Caatu Yaraax attention attention Caat Yaraax léegi dañ defe woon Caat Yaraax daf ko ëpp doole waaye mi ngi bëree ndeysaan daa mel ni ki doole feeñul doole feeñul de bëree feeñ Bulldozer moo ñu wan ginnaaw da koy xeexloo Caatu Yaraax moo wan kanam ngemb lu vert Bulldozer Bulldozer ngemb bu rouge noir blanc marron am na marron di e Maron APR ñoo ko moom de voilà bàyyil couleur jàmm bi ngay utiliser sa ngemb bi laser moo ñu wan ginnaaw caatu yaraax mi ngi dóor mi ngi dóor jàpp nañu Bulldozer jàpp na ràcc na ay tànkam Bulldozer moo ñu wan ginnaaw ñu ngi liggéey épreuve de force épreuve physique endurance et eh, rëpp rëpp rëpp daanu na caatu yarax daan na ko bii nag leer na nañ bii nag leer na nañ Bulldozer demal defi recours bu la neexee Caatu Yaraax am na ndam ma ngay julli man seen julli bi laa xam ban façon julli la ak ban kiila ak ban religion ma ngay bërëngu périer périer na waat ma ngay def yëfu yëfu yëfu yaraax yëfu yëfu lébu ma ngay jooy ma ngay jooy ndeysaan